suñu constitution dafa ne ci article 103 mandat wu président de la république bi durée bi kenn mënu ko laal kenn mënu ko réviser tey loolu la ñu def nii réviser ko yóbbu mandat bi ba au-delà du 15 décembre. parce que bu ñu nee élection yi 15 décembre la mun na am le président lui-même prêtera serment au-delà li fi xew nag du dëgg du yoon loolu la junjoon te bu ñu ragalee le 2 avril bu weesoo. mbir mun na xew ci dañuy continuer suñu liggéey tant que dañuy doon ay député lu ñu yàlla may ci ay moyens lu ñu yàlla may en tout cas ci ay jumtuwaay nga xam ne mooy euh, constitution bi mooy code électoral bi nañ ko jëfandikoo nañ ko yóbbu conseil constitutionnel nañ ko yóbbu fépp fa nga xam ne mën nañ ko fa euh, daanee te lii yaakaar naa ni c'est de manière flagrante c'est anticonstitutionnel respecté wul règlement intérieur respecté wul dara jaay doole rek ka fi nekk